yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ànd ci Cheikh Diop Cheikh dañ koy tàmbali ak l'observateur ñu door ak l'observateur soxna lu ñeel wàllu politique fii ci réew bu euh, euh, Sénégal lu soxal euh, moom njiit bu réew bu Sénégal ma woon président Macky Sall ak ki ñooñam jàppal ne mbëggeel gu mënta nekk ci aw soriante gis nañ ci ci page 3 bu l'observateur njiit bu réew ba woon nataalam ma nga ca fës keneen koo xamante ni nataalam fës na jëm ci wàllu politique mu ñeel Elimane jëwriñ moom Ousmane Sonko redynamisation euh, bu parti itam la daal di addu Pastef ak itam risque euh, d'une nouvelle voie à ci li nga xam ne euh, moom moo di l'observateur mi ko tënk ci lu toll ci ñetti poñ l'observateur dikkaat na itam ak lu soxal wàllu politique ak li nga xam ne daal na ci am ci wàllu njabar mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page neuf ñu otali beneen page bu addu ci leneen ca diwaan bu Louga benn soxna soo xamante ni dafa am borom kër benn mason moom moo ko bëggoon sàkku soxna soose nag daal di bañ ci loolee la daal di langaamu ci li nga xam ne nag moom moo di euh, euh, li nga xam ne euh, moom moo di partie intime yi mi ko lire ci li nga xam ne moom moo di l'observateur l'observateur di kat ba tey ak itam wàllu caada le rap mm. dans l'ère des combinaisons mi ngi ci page huit bu l'observateur page douze itam di kat na ci lutte avec frappe maanaam bëre dóor ëmma seen lenn ci ay secret yoo xamante ni tax na mu gën a am ak taxawaay ci li nga xam ne nag moom moo di làmb gi la tax ñu càmbaru ni mel bokk na ci combat yi nga xam ne nag euh, mu ngi ko doon amal ak euh, euh, Sa ci dibeer yi nga xam ne nag moom la ñu weesu te Malick jël li nga xam ne moom moo di. bës bi bi. Hmm, ñu jàll ba tey ci grève yu travailleurs yu collectivité locale yi tension bi jàppal ne ba tey ma ngay wëy ndax itam seen i ay brassard saa yoo tourné ma nga ak ñoom ñu takk seen bopp wala boog ñu takk ci li nga xam ne moom moo di seen ak loxo soxna quotidien lu mu le quotidien euh, ba tey euh, ci euh, dooraat yenn ci ay chantier ci corniche yi ak itam hmm. feneen xam nga ni itam ginnaaw dogal bi bi mu bàyyee ko ci président jomaa Diomaye Faye moom itam mel na ni ku dellu ak ginnaaw wala boog ku teggi tànk ci dogal yooyu nga xam ne nag jëloon na ko moom président. ñu jàll yenn ci ay bateau yoo xamante ni nag ñoom la ñu autorisé maanaam may sañ-sañ ñu ñëw ci li nga xam ne nag moom moo di waax yu Sénégal jàppal ne liste wi daal di nañ koy rek daal di fësal ci téeméer ak fanweer ak ñaar euh, ci ay bateaux euh, nationaux jàppal ne nag fukk ak juróom-ñett en euh, étranger enregistré maanaam ay bateaux yoo xamante ni mënees nañoo jóge ca Tugal ñëw fii ci réew bu Sénégal à la date du 6 mai 2024 benn poñ la boo xamante ni le soleil national daal dina koy jukki ginnaaw la soleil national ñu àddu ci beneen ab yéenekaay yi libération dëkkaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di renonciation fiscale ak itam douanière euh, bi ñu jagleel yenn ci ay société euh, minière euh, jàpp atum 2015 atum 2018 Sononata jàppal mi ngi àddu lu soxal wàllu opacité totale autour d'un cadeau de 234 virgule 982 milliards ci li nga xam ne moom moo di suñu ay koppar liste bateau yi nga xam ne ñoom la ñu may sañ-sañ ñu daal di dugg ci li nga xam ne nag moom moo di suñu ay waax jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu napp gi itam daal na ci àddu moom docteur Fatou Diouf la mu bëgg itam bokk na euh, wàlluk euh, transparence maanaam leeral am ci li nga xam ne euh, moom moo di wàll wi ndax jàppal ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi boobu ak léegi doon nañ àddu ci mbir mu nu mel. ñu dem xool tribune. tribune mm. dikkaat ba tey ci lu soxal wàllug politique ak parti nga xam ne boobaak léegi yaa ngi dégg seen ak tur PS AFP AFP ak itam PIT LD bés du ñàkk ba sax li nga xam ne moom moo di. PDS euh, PSD PDS la bëggoon bind euh, euh, mu mel ni yéen bu ni mel jàppal ne seen ay tur nag mm. existence képp dong la am ci li nga xam ne nag moom moo di papier waaye jàppal ne ñoom daanaka nërmeelu nañ ñu dem xool Walf Quotidien Walf Quotidien di kat ci publication bu liste bu ñi nga xam ne ñoom lañ may sañ-sañ wi jàppal ne itam bëri na ci ñoo xamante ni ay prête-noms lañ page cinq bu li nga xam ne moom moo di fu Quotidien di kat na ci publication yu licence de pêche yu ni ko. Blaise Ko dikkaat ba tey ak njiit bu réew ba woon moom président Macky Sall ak itam indemnité yu euh, session euh, journalière euh, jàppale nag moom daal nay gàtte bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di conseillers municipaux yi ak itam départementaux yi page 3 bu Les Échos moom moo ci dikkaat bu baax a baax leneen ci lu mu dikkaat Les Échos bokk na ci kàddu yi nga xam ne moom Thierno Bocoum daal dina koy yëkkati jagleel ko ki nga xam ne nag moom moo di président Bassirou Diomaye Faye daal di koy fàttali lenn ci loo xamante ni itam ay diggéem la ak itam liggéey wi nga xam ne war na ko door fii ci réew bu Sénégal ndax askan wi sonn wu ñu sonn. ñu jàll ci rapport bu pôle urbain bu Diamniadio ak itam euh, ministère bi ñu dénk wàllug wérgu yaram fii ci réew bu Sénégal lay lëndëm lëndëm euh, ci li nga xam ne itam moom moo di euh, wàllug yorin wa maanaam gestion bi. ñu xool la publication wu licence de pêche yi jàppal ni itam lees waxul ci wàll wi mu ñeel les mystères d'une maanaam laas dikkat na ci bu baax a baax daal di ci xaatim ak mbind mu xonk. accord de pêche ba tey mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di état bu Sénégal liste bateau yi nga xam ne ñoom lañ may sañ-sañ ñu daal di koy euh, fësal mi ngi ci li nga xam ne moom moo di euh, bile yéene kaay daañ dikkaat ci li xam ne itam ñoom lañ may sañ-sañ seen ak lim ak itam date bi nga xam ne appal nañu leen ko loolu lépp mi ngi ci boobu la yéene kaay euh, publication wu rapport bu IGE ak itam cour de comptes ba ci li nga xam ne moom moo di OFNAC Sonata jàppal ne moom Diomaye la pression de la la répression lu ni mel la rek daal di addu moom bi la yéenekaay ñu jàll ci euh, di kat ba tey ci renouvellement bu euh, classe politique euh, sénégalaise bi nag retraite anticipée maanaam seen ak noppalu dañu ko rek daal di dabe xamee na ñenn ci ñoo xamante ni seen xar kanam yéenekaay bile daal dina koy fësal Aminata Mbengue Ndiaye moom Khalifa Ababacar Sall ak itam ki nga xam ne moom moo di Mamadou Diop Decroix Abdoulaye Wade ak itam Moustapha Niass ak ñeneen ci ñoo xamante ni seen ak nataal mu ngi ci boobu la yéenekaay mm, Sport record Ligue des champions demi-finale retour Paris euh, peut-il renversé euh, Dortmund laaj la woo xamante ni euh, suñu ay naataangoo yu euh, record ñoom ñoo ko daal di samp record mu ngi ci page bu ni mel page si itam dikkaat na ginnaaw Chelsea ak itam Stamford Bridge jàppal na Jackson la tanière à conquérir lu nu mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di yéeni kaay bi page itam fësal na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni Malick Daaf di entraîneur bu Jaraaf daal dina koy fësal soxna naata jàppal ne moom nee na titre bi daañu ko rek euh, amal ba mujjanteelu li nga xam ne euh, moom moo di euh, journée bi beneen ab yéenekaay buy ba tey ci wàllu tàggat yaram. football muy stade. stade di kat ba tey ci li nga xam ne moom moo di kaddu yi demb ba daal di fësal jagleel ko ki nga xam ne nag moom moo di Nicolas Jackson la mu xam le moom moo di nag nay woy di gën a góorgóorlu ndax itam muy gën a daal di briller. ñu jeexalee ak sunu lamb. sunu lamb la koy jeexalee sunu lamb dikkaat na ci rek beneen ab combat woo xamante nii euh, ñu ngi koy euh, nas diggante ki nga xam ne euh, moom moo di Eumeu seen ak itam Franc wala bokk ana moo tax Eumeu seen daal di jublu Franc lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di sunu làmb sunu làmb dikkaat ba tey ak Eumeu seen victoire yi nga xam ne am na ko ci digganteem ak Sa ak itam Balla Gaye 2 xam nga ne moom Eumeu ñaari yoon la daal di daan ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 daan benn yoon rakam jile di Sa mu mel ni itam wàllu bête jëm ci njabootu saaxo lay rek daal di addu moom sunu làmb pàcc wu njëkk wi soxal li yéeni kaay yi xëy fësal ñaareelu pàcc wi daañu dikkaat gën koo faram-fàccee nu mu gën a yaatoo jagleel ko mbokku téléspectateurs yi ñuy teewlu lan lañ fas yéene waxtaanee ci hmm. jotaay